Thank you di nga bàyyi kenn laa la. bàyyi naa ko. bàyyi ko. dama lay rey yow. bàyyi kenn. bàyyi kenn. lan moo tax ngay kenn. maa bëgg nga bàyyi kenn yow. maa bëgg nga bàyyi kenn. di nga bàyyi kenn wala doo bàyyi kenn. eh bàyyi kenn. bàyyi kenn. bàyyi kenn yow bàyyi kenn. bàyyi kenn. bàyyi kenn. di nga bàyyi kenn wala doo bàyyi kenn. bàyyi kenn. we, uy, ay, we, uy, uy, we, vaina, que muy se manda y uy, uy, ay, uy. ya mbaa dara yow mama yuuxu bi pour lan anu anu ah? la ana borom jaalaabe bi borom jaalaabe jaalaabe lan yow borom kuur gi borom kuur ga ak peer bi ak paaka bi peer turki jam ba tak ku geer kii gént la doon def nee nga borom jàllaa bi moo fi nekkoon di lay toog ni rek xaw bu la dalu doon ma damaa xam ne njolloor gi ñun ñëpp ñu toog ci salon bi ensemble nga ne yee yaay bëgg wéet toog sa néeg sàngu gisagoo dara sax. ah maman yow de yaa ko waxal sa bopp bàyyi naa fen war ngaa bàyyi fen gént naa nga de. nga suuf ni ëpp nag sa musóoru garabu tiiñ bi ba ko defee laa xam ne di nga gént jël naa jo bi sàngoo di nga gént. waxumaa gént. koo waxal loolu di fekkee nit buy foofu. ñeent ñetti ñetti. di mel ni ay mannequin yu war a défilé génn dajji fii di am loolu di expliqué na ngeen fexe na nag ba mu ba mu génn. exemple bu la suñu borom beneen yoon bu ñëwee da lay isaab malaaka ngay gis xam nga waa ji baax moo taxaw fii yor jaasi xaw ma paaka di di bi yoon moom malaaka bi koy jël. jël yéen a expliqué ba tey doo leen jug génne ne. li ma il information bi ma jox ko kan yéeme ñaar. yéeme lañ koy jox ko tëggee partage ko. dootoo ko <laughs> def wala dañ ma jox moom xam kan la. ndeylo sa doomu ndey xam nga bu mu ko yëg sama sa doom day da nga siiw xoram de doom ndeyloo ne da nga xote nag lii rek a baaxul ci yow doom day musóor bi mel ni ku def garabu téye yow génn <laughs> góor ndeyloo bu yëg ko wala bu mu ko la def bi kaa leen ma wax yow suturaal leen bu iya. Bulan génn yobu leen ko bu ko yóbbu amee. yow nga war a dëkkandoo léegi de sutura boo ko amoon rek ñu partage la ko waaye amoo sutura moo tax mënuñu la partage. bu leen ko wax da nga jëm ndax ga bi day basket. ñeme day nettali boo ko jox tamit. nee rek nee rek. nee loo. dem leen. booy bu salut. ko misaal de ah caaxa ida la xam naa nii ba pare de peel la indi woon nar naa suuf waaye ñetti fankat yi yi ba am doom de ah, mun hmm. ci man de ma wàññi fen gi rek xanaa moo ci mën a wàññi daal wàññi ko yàlla suturaal na ma ma def na dara alhamdulilah rabbil alamin sama ronka ñaan génn waaye jarul ngay génn de comme ma kay jarul ngay génn de mën ngaa duggaat daraawul